lépp sëriñ bi rekk la. dañoo dox ba ak si rek. nee na dañoo dox ba ak si rek. waaye mooma waaye mooma. alhamdulilah rabil aalamiin. nee na alhamdulilah rabil aalamiin. mbégte mu rëy rëy rëy moo xam ne mel na mbégte mënu koo. nee na koo mënu koo dab. li gën a ci ci gën a doy waar. nee na li si gën a doy waar. Eh, ci ci ci lii laa xëy. nee na si lii la xëy moom sëñ bi. xaw ma woon ne jotaay bi dina ma ni mu ci xëyee. nee na ni mu si xëyee. dama eh, seet ne. nee na dafa seet ne. ca dox yi ñu njëkk ya. sa dox yi ñu njëkk ya. kilifa yi. kilifa yi. dañ daa jéem a musal seen bopp. dañ daa jéem a musal seen bopp. nañ ko daa musale. nañ ko daa musale. mooy ay tata. mooy ay tata. tata yoo xam ne. tata yoo xam ne. am na si yoo xam ne. am na si yoo xam ne. bu noonu yi ñëwee. bu noon yi ñëwee. mën nañ faa am ay weer. mën nañ fa am ay weer. te duñ mën a dugg fenn. te duñ mën a dugg fenn. loolu doxinu adduna la. nee na loolu doxinu adduna la. la ca daa am nag. nee la sa daa am nag. la say maanaam. la say maanaam. mi ngi dox moom mooy dox. nee mooy dox. moom rek kay dox moom rek kay dox. coobare suñu borom si suñu borom. waaw faggu gi nag. nee na faggu gi nag. faggu gi faggu gi faggu gi. am na yaqin ci ne. nee na am na yaqin ci ne. lu mat a faggu. lu mat a fàggu sëñ bi faggul nañu ko. nee na sëñ bi faggul nañu ko. te jubóo na seeg boromam. te jubóo na seeg boromam. lu mat a ñaan. lu mat a ñaan. ñaan nañu ko. ñaan nañu ko. ñaan ñaan ñaan ñaanal nañu ko. ñaanal nañu ko. te borom nangu na ko te borom nangu na ko. alhamdulilah. kon bu fekkoon ne xel mën naa dal ci àdduna. bu fekkoon ne kon xel mën naa dal si àdduna. suñ xel na dal. nee na suñ xel na dal. mën na mën na noo tëdd nelaw. nag adduna moom. waaye nag adduna moom. coobare saa borom. coobare saa borom. ci coobare saa borom. si coobare sunu borom. dafa am nu muy doxee. dafa am nu muy doxee. noo xam ne yëngute yaa ngi ci biir. noo xam ne yëngute yaa ngi si biir. te doo doomu aadama nag. te doomu aadama nag. te doomu aadama nag. te doo doomu aadama nag moom. dafa am ak doyadi. te nee na doomu aadama nag moom dafa am ak doyadi. doyadig doomu aadama doyadig doomu aadama. moom lañ koy tuddee. moom lañ koy tuddee. moo tax nag. moo tax nag. faggu mënta ñàkk. faggu mënta ñàkk. Eh, li ma xëy li ma ci xëyee. nee li ma si xëyee. Eh, damaa joxe ndigal. dafa joxe ndigal. ci ci matlabul fawzeyni. ci matlabul fawzeyni. mag ñi làkkub Touba lañ ko tuddee woon. mag ñi làkkub tuubaal lañ ko tuddee woon. Eh, mu bëgg nag loole mu bëgg nag loole ñu daal ñu jublu ci. ñu jublu si. di ko fas yéene koo jëfee. fas yéene koo jëfe waaw damay joxe ak kuréel boo xam ne. nee dafa joxe kuréel boo xam ne. bis bu yàlla bu ñu xëyatee bis bu ñu xëyatee bala ñoo def dara bala ñoo def dara nañu jàng mat la bul faw nañu jàng mat la bul faw seen te njàngin wa nag te njàngin wa nag nañ ko seet bu baax a baax nañ ko seet bu baax a baax na mu gën a na mu gën a nasoo na mu gën a nasoo na mu gën a neexe na mu gën a neexe di ko ni jànge nu di ko ni jànge alhamdulilah loolu ñu am ci pas-pasu loolu ñu am ci pas-pasu aar ah, gën a gën a maanaam la ci suñ kem kattan. nee la si suñ kem kattan. mu di ko ñu jëfandikoo ko. ñu jëfandikoo ko. muy muy muy muy muy am ci pasteefu. am si pasteefu. aar gën a aar Touba. gën a aar Touba. waaw aar ah, kaaraange goo xam ne. kaaraange goo xam ne. Sénégal xaj na si. senegal xaj na si. jullit yëpp xaj na si jullit yëpp xaj na si. alhamdulilah. loolu joxe na si ndigal. sëriñ bi nee loolu joxe na si ndigal. ah loolu boo si joxee ndigal si suba si. nee na loolu bu si joxee ndigal si suba si. jotaay bii am jotaay bii am. loolu du man. nee na loolu du moom sëñ bi rek la nee sëñ bi rek la. jërëjëf Mbacke. alhamdulilah Mbacke waaw. gannaaw ba loolu wéyee. nee na gannaaw ba loolu wéyee. mën la ñàkk. kaaraange ku ne xam na ne. te ku ne xam na ne. maam Cheikh mooy kaaraange ak yoon bi. maam Cheikh yoon bi. loolu loolu ku ne xam na ko. loolu ku ne xam na ko. ndax moo ko jëkkee woon. ndax moo ko jëkkee woon. muy dox muy dox. ba jamono agsi fii ba jamono agsi fii doxinu jamono day soppiku doxinu jamono nag day soppiku kon nag lan na gën a leer kon nag na gën a leer kaaraange gi ci dëkk bii tey kaaraange gi si dëkk bii tey gën nañ leen koo dénk gën nañ leen koo dénk gën nañ nu koo dénk nun njabootu Cheikh Rafal la ci gën a metti nag la si gën a metti nag mu gën noo metti mu gën a metti sëñ gën noo naqari gën noo naqari mooy politique ci dëkk biir mooy politique si dëkk biir dëkk bi nañ ko jaare ci yoon. loola nañ ko jaare si aw yoon. moo tax jaare ci yoon waaw waaw dëkk bi moom li ñu ci gën a bañ na mooy politique. sëriñ bi nee na dëkk bi li ñu ci gën a bañ mooy politique. mën nañu mën nañoo seet feneen fu ñu koy defee. mën nañoo seet feneen fu ñu koy defee nag. dëgg la Mbacke du ko tudd waaw waaw nee sëriñ dëgg la Mbacke du ko tudd waaye Mbacke ngi fi. kon loolu moo jiitu. nee na kon loolu moo jiitu. kon mu ngoog liggéey bàngoog. nee na kon liggéey bàngoo li nga wax li ma doon li ma waroon wax lépp dugg na ci biir yi wax. waaw sëriñ bi nee na li ma waroon a wax lépp dugg na sunu biir yi wax. dégg wax nee na dégg na wax ji bu baax. noonu dong la demee nee noonu dong la demee. kon nag kaaraange goon gaa ngoog. kon kaaraange gi nee na mu ngoog. lañ ciy war a dolli rek. lañ ciy war a dolli. moo di lépp na ànd ak jàmm. moo di lépp na ànd ak jàmm. alhamdulilah. loolu. loolu. buñ ko wax buñ ko waxee ku ne war koo dégg. buñ ko waxee ku ne war koo dégg. ku ne war koo gëm. ku ne war koo gëm. sëriñ bi jóg na. sëriñ bi jóg na. liggéey liggéeyam bii. liggéey liggéeyam bii. muy muy liggéey bu rëy. muy liggéey bu rëy. borom boole koog noonu yu noonu am doole. borom boole koog noonu yu am doole. noonu yu bon a bon a bon. noonu yu bon a bon a bon. noonu yu soxora soxora. mu ànd koog ñoom. mu ànd koog ñoom. ba gongi koog ñoom. ba gongi koog ñoom. dellu fii ci dëkk si fii si dëkk bi ba mi ngi fii si dëkk bi. te xat damut. te xat damut. benn toq deret tuuru. nee na benn toq deret tuuru. liggéey baa ngi noonu noonu la ko fi bàyyi. nee noonu liggéey baa noonu la ko fi bàyyi. nañ liggéey te liggéey bi rafet. nee nañ liggéey te liggéey bi rafet. bi sotti. liggéey bi sotti liggéey bi wér. liggéey bi wér. te te jàmm rek ay xew. te jàmm rek ay xew. noonu la ko sëriñ bi liggéeyee. noonu la ko sëriñ bi liggéeyee. kon doon laa ngoog. kon doon laa ngoog. nañ ko doon rek nañ ko doon rek. jëfee ko noonu te jëfee ko noonu. nan fab sunu lépp. nan fab sunu lépp. def ko ci sëriñ def ko ci sëriñ nag loolu moom yéen yéen laa na xam loolu moom yéen la waaye xam na ko waaw. jërëjëf Mbacke. maanaam dama dama ko wax nii waaye yéen. yéen yéen yéen yéen yéen a ngi nee na da ko wax nii rek waaye xam na ne nun ña nga sax. waaw kon kon kon na sëñ bi suñu yitte jëpp. nee na kon suñu yitte jëpp. suñu xementeef bépp. suñu xementeef bépp. suñu jublu gépp. suñu jublu gépp. lépp nay sëriñ lépp nay sëriñ bi. nan ko xool rek. nan ko xool rek. buñ xool gis dara ci dëkkam bi. buñ xool gis dara ci bi. mel na kuy fetal rek. mel na kuy fetal rek. boo gisee leneen lu rab bi ngay diir. boo gisee leneen lu rab bi ngay diir. doo jam dara doo jam dara. kon nag alhamdulilah. kon alhamdulilah rabbil alamin. ndokk bi nga xamee ne. ndokk bi nga xamee ne. lii sëriñ bi rek la. lii sëriñ xam na ni moo ko santaane. xam na ni moo ko santaane. waaw ah, jërëjëf Mbacke kon mënatu la ñàkk. kon mënatu la ñàkk. kon kaaraange gàngoo kon kaaraange gàngoo. ci baatin bi moom. nee na baatin bi moom. noppi na ci sëñ bi noppi na si. waaye kaaraange si nag. waaye saahir si nag. dénk nañ nee na dénk nañ nu ko. lépp nag itam. lépp nag itam lu si mat a teg ci yoon. lu si mat a teg ci yoon teg jaale si yoon. daanu ko jaale si yoon. teg ko ci yoon teg ko si yoon. ba ngeen mën a dox na ngeen ko na na mu gën a rafet. ba nu mën a dox na mu gën a rafet. na mu gën a ëpp njëriñ. na mu gën a ëpp njëriñ. loolu rek la demee jërëjëf jërëjëf Mbacke. waaw ginnaaw nee naa sëriñ bi rek mënatu si mënatu see dolli dara. waaw ginnaaw nee naa sëriñ bi rek mënatu see dolli dara Mbacke. alaay ah, Mbacke alhamdulilah Mbacke. kon nag ginnaaw dama dafay joxe ndigal. nee na ginnaaw dafa joxe ndigal. muy ndigal lu rëy rëy. muy ndigal lu rëy rëy. si matlabul faw seyni. si matlabul faw seyni. te yëgul woon ni jataay bi dana am te yëgul woon ni lii dana am. jataay bi dajeeg ndigal lool. jataay bi dajeeg ndigal lool yi. loolu sëriñ bi rek la. nee loolu sëriñ bi rek la. kon nag jërë ngeen jëf kon nag jërë ngeen jëf. moom moom rek. mi ngi noonu rek. kaaraange gàggoog kaaraange gàggoog. seen kem kattan seen kem kattan. xam ne nu ko bëggee. xam ne nu ko bëggee rek daan ko ni amee. alhamdulilah rabbil alhamdulilah Mbacke. nee na lu si doon nee naan lépp wax naa waaw Mbacke. lu ci des rek. waaw lu si des rek daañu ko toppaat incha allah ko toppaat. ba mu gën a tege ci ba mu gën a tege ci ba ngeen gën a mën a def seen liggéey. ba nu gën a mën a def sunu liggéey. waaye li ma gën a ñor daal. waaye li gën a ñor sëriñ bi. mu jóge ci bi mu jóge si dëkk bi. mooy mooy politique. mooy politique. waaw. jóg na fi dem Mbacke. doo ko fi dégg de. yëpp lu ñuy lu ñuy ba yooyu yëpp itam mën naa gën dëkk bi. nee na yooyu yëpp itam mën naa gën dëkk bi. waaw waaw wallaay Mbacke waaw jërëjëf waaw. xol waxuma sedd na waaye suñu xol na. si nee na sëñ waaw waaw sëriñ Abibu Mbàkke sa sa moom moom sëñ Fallu dañu faa dem ngir taxawaay bi mu am si liggéey sëñ Tuubaa bii ak jàpp gu mu ak ñor gu ko liggéey Cheikh Fall bi ñor nga xam ne lu sëriñ bi masane rek ñëw na ànd seek nun liggéey yi nga sant sëriñ bi yëpp bu bu nu ko bu boo ko bu ndigal li rotee rek mu ne lu Tuubaa si kanam am si jumtuwaay na ko daal yóbbu teg ko si loxol njabootu Cheikh Fall mbooleeg di togg ay ñam saa su di indi moo waraloon bëkk démb dem nañ ci Serigne Abo waaye noonu nañ fa dem ndax daa am cëru boppam ci liggéey bii bërki démb ba nu fa demee mu mu daal di génn ñaari junni daal jox sëñ Assane mii ne ko damay ñaan ndigal ci sëriñ bi nun nan mu téeméeri junni murit ku ne joxe ñaari junni nee na mu doon milliard ñu jël ko def ko foo boo xam ne si la ñuy liggéey li sëñ li mu bëgg si dëkkam bi si oto yeeg oto mbalit yeeg oto yi dox ak oto yi sàmm ak di wattu mu ne sàkku naa bu ngeen demee fi sëriñ bi ngeen dimbale ma jotalal ma ko loolu. te yàq ci liggéey ba mu <laughs> waaw am fii rek. ñu <laughs> waaw. waaw waaw waaw. waaw waaw jërëjëf. waaw ba bi dafa ah, maanaam da ngeen am ndigal itam nag. waaw. sëriñ bi ne dañoo am ndigal itam nag. ñi ko ñi koy ñi ko daa ñi ñi ngeen ko seqal. ni ñu ko seqal. ngeen waxtaan ngeen waxtaan ci ñoom. ñu waxtaanee ko ak ñoom. te ànd ci ak ñoom. ànd sa ak ñoom. ci lu koy defar. ci lu koy defar. lu koy yombal. lu koy yombal. ñu ànd sa ak ñoom. maanaam lu mel na tey bu oto bi ñëwoon. lu mel ne tey bu oto bi ñëwoon. war a. bañ a bañ a ñu bañ a wotee si bi bañ a réunion dëkk yi bañ a réunion si biir dëkk bi bañ fee wotee insha allahu mbakke bu soobee yàlla dañ koy ànd ak ñoom jàppale leen ñu jàppale leen ba lépp tege si yoon waaw incha allah waaw nu génne bureau de waaw génne sëñ Fallou Fall la genn ji. Ah. sëñ Amar Baye. waaw waaw sëñ. waaw lu baax li mu bëgg. sëñ Cheikh Ndiaye Mbeng